gis nga buñu démé ba le 24 février ñu né diw gagné na ku munti gagné ma nga lay fatali ben extrait bu daw yaram extrait bu daw yaram bu gatt Umar ibn Abdul Aziz soko waxe gaay nak ñu né ñom ndaysan ñëlé rek lañuy wax waaw ndax ñoy référence yi nak te gis nga suñu gaay yi war nañu jël référence ci ñom de wallaay ñu fi bàyyee Machiavelli fii ñëw ci Omar ibn Abdou Aziz ku diriger réew dootoo campagne doo taxaw di défendre say programme déedéet doo tax xam nga nooy def dangay toog di xaar gars yi ñoo la naan doyalu ñu toogal doyalu ñu toogal pourtant àdduna bi wan nañu ko am na ñu mel noonu Malaisie Malaisie seen njiit daa toog ñu day bàyyi gars yi ne ko mukk <laughs> déedéet doo bàyyi ah li ñu bëgg mën nga ko yaa ngi koy doxal jàmm am na jarul keneen di ñëw ah Erdogan nan la ko mbokkam yi def mën nañ laa may nga toog 15 ans kenn du la opposé parce que dafa def lañu ñu soxla extrait bi Umar ibn Abdou Aziz avant muy nekk buur ku amoon alal la teraanga bu ne mu am ko bañ na ko ba buy dox sax ay coiffeur am mat nañu 15 personnes ñii di ko létt furi ñii di peñe ñii di ko defar ku jekk jabaram jekk Fatima alal bu ne mu am ko ay frère am nekk buur ay papam nekk buur or yi bëri gànjar yi bëri waaye keroog bi Suleymaan ibn Abdul Malik feebare ay doomam nekk xale xamul nu muy def mu woolu Rajaa ibn Xaywa ne ko li ma xam de mooy am na teraanga ku baayam jur doom ju mag wax la ci arab ne ko lii nag yaay sama conseil xam nga conseil warta wor njiitam ne lan nga may conseil mu ne ko li nga bëgg bu fekkee danga bëgg bàyyi sa ginnaaw set Umar ibn Abdul Aziz kenn gënu ko ci mu ne waaw gis nga jour bi mu bindee notam ne Umar ibn Abdul Aziz moo may remplacer Umar ibn Abdul Aziz ma nga ca jàkka de julli toog di ñaan rajaa ibnu xaywani tëll ndeysaan julli ñaari rakka toog ci wetam mu toogee ci wetam ne ko Umar mu ne mu ne ko Suleymaan daf laa soxla mu ne ko ngir lan mu ne ko fal na la amirul muminin Umar ni kërëb xam daanu xam jibileewul de waay man la bu ko neexoon mu def ko mais Umar dafa daanu xam saqata maghshiyan alayhi naan rajaa noon naan la bugguma rajaa dugal nga ma ci fitna lan moo tax rajaa nga déclaré ma rajaa ne ko amuñu ku la gën te duñu ko bàyyee keneen mu yàqu yaa ko mën a yore yow lañ koy jox Umar xëm bi mu xamee ximmiliku mi ngi jooy lan lay wax inna lillahi وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه دي كات كات ملك سبور رجع توك ديكو خول عمر جوك توك فرن كولاي ديف ني ما ديف دي جوي دي جوي رجع نكو لالا مونكو دعني استنقذ نفسي من عذاب يوم عظيم نكو بما bayima ma xettali sam bopp ci mbugal yowmal qiyam ñun nag dañ naan su ngeen ma falee ma nangam ma defal leen nangam ma nangam ñi baaxoon démb dañ leen di fal ñuy bañ nitu tey dañ naan fal leen ma xam nga li ngay wax fal leen ma mooy lan yowmal qiyaam yàlla taaj la laaj la ci sénégalais yi seen xaalis fu mu jaar seen wér gi yaram seeni am am seen jàmm seen salaam nga ni yàlla mën naa ko mën naa ko ah non yàlla amul problème mën naa ko mën naa ko gérer wéy man rek maa mën ñeneen ñi mënuñu nga wax loolu Umar ibn Abdul Aziz di jooy mel ni ku sibburu lan lay wax inni akhafu in asaytu rabbi adaaba yawmin azim ay way ragal naa bu ma mooyee sam borom mbugal bu metti gaa yi ñëw ñu woo Umar ibn Abdul Aziz mu jël ba pare mënu ci dara woowaat nit ñi ñu ñëw mu ne leen man ngeen fal waaw léegi delloo naa leen ko ndax laajuñ ma sama xalaat dangeen ngeen ma forcé jox ma ñu ne ko forcé wuñ la yow la ñu bëgg jëlal xam nga ku am légitimité la delloo na leen nguur gi ñu delloo ko ko Umar toogaat yëngalaat bopam ne inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim dem kirim, tok ci lalam di joy ci lalam la tok di joy beut set raja ñew jël si ginnaw bu sal suleymaan ñu wara dem suradiq suradiq moy palais de la république nga xam lu nekk fa nekk ci ay alal préparé di kohar. xaar Umar mi ngi dox di ñëw ànd ak raja bi mu agsee ci pale bi jub pale bi seen ay fasu naaru góor yu ñu orné gauche droite rafet lool mooy huit huit yeeg seize seize yi léegi mu ne raja lii lan la ñu ne ko lii mooy otoy présidence yii mooy fas yi nga xamante ni présidence la ñoo ko moom lu ñu bëgg ñoo lay escorter booy génn mooy motards yi escadron blindé ñoo lay tiim sapeur a ngi nii ñooy ne sa ginnaaw pour en cas problème gendarmerie mi ngi nii sa kanam police mi ngi nii ñëpp ànd ak yow booy dox kenn warul dox soo jaaree ci mbedd na ñëpp taxaw ba nga pare Umar ibn Abdul Aziz mu ne raja mu naa mu ne ko dumma haadihi ila bayti maal mu ko dajalee lépp delloo ko trésor public allahu akbar kañ la ñu président buy wax loolu ha yaakaaruma ko de waaye war naa mën am dem ba ci kanam ñu tegal ko ay valise yére yi nga xam ni moom la buur war a sol yére bu ci nekk ay or lañ koy laxasee mun a raja lii lan la mu ne ko yii mooy yére yi xilaafa gi yi nga war di sol bis bu nekk mu ne ko dummaha ila baytimal muslim daa ne sëmm de mu jékki nag ñu gis ay jigéen yi rafet ñu rànkale leen ay jànq yoo xam ni ay jaam lañ leen def waaye buura moom nu ko neex def moom daal ñoom ñooy jaami président ku président soxla woo nga ñëw yoonu kenn newu ci mu ne rajaa ñii ñépp yow laa wax yow raja soo xëyee kenn ku nekk xoolal turam santam këram kër pàppam dëkkam nga delloo koy mbokkam dañ leen a jëloon ci jaay leen doole lañu bëggoon commencé naa am de def noonu ba pare nag ñibbi këram toog Fatima jabar ji ndeysaan di ko xool mu ne ko Fatima mu ne ah, mu ko gis nga liñ ma teg de ci jullit ñi mu ne waaw mu ne ko jaayante nag sama boroom lu ma amoon dugal naa ko trésor public man déclaration patrimoine def naa ko waxuma sax mais lama ma moom lépp dugal naa ko baytu maalil muslimin ndax yàlla ma nattu dénk ma fuqaraa yi dénk ma masaakiin yi dénk ma célibataire yi dénk ma indi handicapé yi dénk ma ñi amul pexe dénk ma ñi nga xamante ni dëkkuñu fi ñëpp maa war a saytu seen mbir ñu nekk ci jàmm kon talatuma la ma taloon démb delloo naa la ma moom Fatima ne tekk mu ne ko nag bu fekkee bëgg nga man Umar ibn Abdul Aziz ma nek sa borom keur continuer ni ma sama borom yewit nga def ko Fatima ne ko lo bëgg la bëgg lo diglé la bëgg mu ne ko xam nga fi nga jëlé won sa alal xam naa ko mu ne ko deet sama alal sama papa ñoo ko may samay nijaay sama frère mu ne xam nga xam Fatima alal di fiñu ko jëlé jox la ko mu na mu ne ko man ak or yi duñu fanan ci nak kër légui nak tanal nga dem ak say or ñibbi ma may la baat wala nga nekk ak man delloo lépp Fatima yëngal bopp ba ci àgg dem génne lépp ñun nag suñuy première daam ay ay lan la ay 5 millions 10 million 30 million la ñuy mayee te liggéeyuñ ko nag dafa neexul wax waaye liggéeyuñ ko gis nga maye dafa neex la nga moom waaye di jël alal di tibb di joxe. ah Fatima de bu ko neexoon mu am benn organisme waaye Fatima delloo alal jooju toog ba ci yàgg ne Umar. mu ne am ne ko li nga may woo dinaa la ci fekk waaye metti na de Umar ne ko damay ñaan yàlla ëllëg bu ma taxawee sama kanamu borom su ma laajee ma xam lu ma koy tontu ñii de nii lañu daan yore nguur Umar yore na nguur ba génn àdduna avant muy génn àdduna ay doomam ñépp commencé Umar ñàkkaloo na boppam ñàkkaloo na njabootam ñàkkaloo nay doomam nangam na te dëkk bi ñëpp am ñëpp léegi am nañ mais waa këram amuñ waa këram amuñu bi mu déggee li nit ñi wax mu woolu doom yi mu ñëw mu ah, man de seen bàyyi laa ban bàyyi laa doon ci yéen ñu ne ko bàyyi bi gën ci bàyyi bàyyi bi gën ci bàyyi nga mu ah ñaar de moo fi nekk am na ñuy bàyyee seeni doom alal ñu donn ba mu neex leen waaye am na ñuy bàyyee seeni doom yàlla ban ngeen taamu ñu ne ko loo taamu mu ne bàyyee naa leen yàlla ndax ragal yàlla mooy koom gi ëpp ci koom mooy koom bi ëpp ci koom yi su ma leen bàyyee yàlla ngeen def ak yàlla yàlla dana leen sàmm xam nga lu bi Omar bin Abdul Aziz ba mu gaaño ki ko remplacé ak ña ko jiitu woon seeni doom alal ya ñu amoon dem na ba bis jot ñooñu ne ci problème ba ñu nar leen a tëj ay doomu Omar bin Abdul Aziz ñoo génne alal fayal leen wallahi ladi la ilaha ghayr moo tax gis nga dafa am wax bu am solo man kana lillahi kana lahu loo gis nga yalla loko. denk mu del lako kon ma ngi dekk sambo di denk suñu candidat yi neexna <laughs> neex na de fii de moom nga diriger am caisse noire lu nek nga def ak neex waaye ak a metti yowmal qiyam ñu yeewu la nga ñew taxaw ma jité won senegal maa ko laajoon nga wara wax keroog da nga dem banaan yaa laytani kuntu turaaba